Massayette. Ousseynou Samba Mbaye numéro 4 Safietou Diouf ah oui ah oui numéro 68 Aminata Sarr Seck numéro 151 Binta Cacao. Oh putain ah, Numéro 82, Cher Abdou Rachid Cam. Numéro 123, Khadijatou Kandji. Numéro 21, Babacar Ya. Numéro 60, Ibrahim Ngom. Numéro 107, Yandé Numéro 65, Abdou 56 Aida Ndong Le numéro 63 Pape Adama Seck Numéro 81 Awa Taye Dianthiaw numéro 125 Ndayli numéro 75 Yacine Seck numéro 20 Abdoul Sidiki Daw numéro 3 Sokhna May Diagne numéro 10 Sophie Diop Mao numéro 61 Ime Niang numéro 1 Anta Sis numéro 44 Mamadou Gueye numéro 93 Thierno Dieye numéro 37 Mohamed Fall numéro 55 Yoro Ndiaye numéro 62 Ndeye Matignan numéro 92 Kodou Dieng numéro 150 Abdourahmane Sy numéro 5 Mamadou Fall numéro 30 Aram Ndiaye Diop numéro 57 Mohamed Longo numéro 115 Mohamed Faye numéro 70 Cheikh Ahmed Tidiane Seck numéro 146 Kan Diop Seck numéro 108 Habib Fall numéro 149 Souleymane Sow numéro 12 Awa Seck numéro 59 Awa Ndong numéro 8 Dieynaba Ka numéro 26 Mouhamadou Diaw

numéro 114, Mamadou Lamine Faye. Et enfin, numéro 126, Fatouka Maï. 75 Aïda Diop Aïda Diop numéro 49 Serigne Modou Mbodj numéro 109 Aminata Fall Aminata Fall numéro 73 Sodo Mariam Seck Sodo Mariam Seck numéro 23 Kumba Maga Diagne Awa Seck numéro 142 Ndeye Gueye Sala numéro 113 Ngara Faye numéro 113 Ngara Faye numéro 116 Modou Ning numéro 84 Toulde Niamba numéro 142 Maodo Sall numéro 31 Fatou Kiné Diop numéro 50 ma Madjimbi Mboup numéro 72 Mouhamadou Abdoul Aziz Seck numéro 119 Amadou Gueye numéro 134 Serigne Fallou Ndiaye numéro Modou Sam numéro 102 Modou Diop Mohamed Diop numéro 102 Mohamed Diop le numéro 28 Ndeye Baba Dieng le numéro 112 Abdou Khadre Faye le numéro 133 Saïd Ndiaye le numéro 32 Adama Gadiaga le numéro 154 Abdoulaye Touré le numéro 33 Ousmane Diop le numéro 117 Ahmed Gueye le numéro 34 Baguma Baguma billahi Baguma le numéro 99 Mati Diakhaté le numéro 111 Ndeye Modou Fall le numéro 14 Ababacar Sène le numéro 47 Fatou May le numéro 54 Mariama Ndiaye et enfin le numéro 118 Niang Gueye Bédélis Euh, mbokk yi dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak Thiénaba TV euh, ci proclamation résultat BFM 2023 fii ci lycée bu Thiénaba euh, ñu jàkkaarloog ki nga xam ni moom mooy proviseur mu war ñoo jàngatal li nga xam ni tey moom mooy résultat yi ginaaw bi ñu ko joxee ba pare waaye may préciser rek ni jury 1 bi ñoom ñoo génnee seeni résultat loolu tamit précision boo xam ne war nañ ko indi monsieur le proviseur ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. maa ngi lay fay bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alors damay préciser ci euh, Thiénaba lycée Thiénaba ñaari centre la centre BFM la ñaari jury la am jury 1 ak jury 2 jury 1 mooy jury nga xam ni ñun suñu candidat lycée Thiénaba ci la ñu composé jury 2 mooy euh, Seynabou Ndaw collège Seynabou Ndaw euh, collège CM Kër Madaro ak CM Anen ñoom ñoo ci bokk donc résultat yi résultat lycée Thiénaba la mooy jury 1 alors ci jury 1 bi il y avait 154 candidats 151 ñoo composé donc il y a eu euh, trois absents ci 151 candidats yooyu ci résultat yi ci premier tour bi am nañu 74 euh, admis déjà dès le premier tour ça fait plus de la moitié à peu près plus de la moitié 49 pour cent rien que le premier tour am 65 candidats ñu war a jàll deuxième tour ñooñu bu ñu jàllee ce qui va nous donner un taux de 92 pour cent macha allah sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax moo gën a baax bàkk bi daanaka toujours noonu la woon daaw la ñu xawoon daanu tuuti c'était des événements un peu particuliers mais ren on va faire un bond extraordinaire ci ci ci BFM bi alors maa ngi féliciter vraiment le corps enseignant féliciter le corps administratif féliciter tout les jurys féliciter tout le monde féliciter surtout les les élèves qui ont réussi alors euh, ñëpp bu ñuy dem deuxième tour bu ñu jàlle sur les cent cinquante et un candidats finalement rek moo dul ñoo dul am euh, kii bi ce qui est ce qui veut dire que c'est de très très très très bons résultats. Euh, tey ñi nga xam ni dañu war a dem deuxième tour. tey boo fekk amoon na conseil bu ñu leen di jox ban conseil lay nekk. mais comme ni ñu koy waxee rek ñu nafaraat rek ci diggante bi rek xam euh, fu ñu daanu et góor euh, góorgóorlu deuxième tour daanaka su repêchage la repêchage mooy dañ lay tàllal loxo euh, bu ñu lay tàllal loxo nag fekk yow tam nga joxe sa loxo te loxo neex a neex a nangu neex a téye donc ça veut dire nga lu tuuti boo góorgóorlee tuuti rek dañ ciy génn deuxième tour moom c'est vraiment pour jàppale pour xëcc candidat parce que lu ko dese bëriwul. loolu loolu mooy kii kon bu ñu euh, jàngatee dégg bu baax li nga wax mooy cent cinquante et un euh, candidats ñoom ñoo composé euh, mais en tout quatorze personnes lañ ci lañ ci daaneelagul ñeneen ñi ya lañ ci daaneelagul waaw ëggun la ñuy wax waaw. 65 65 ñooy dem deuxième tour. ñooy lambiwaat waaw ñooy lambiwaat. léegi ñooñu ñu leen di ñaanal nag ñoom tamit ñu ñëw fekk si seen seen morom yi nga xam ni. bu ñu fekk seen morom yi. daañu atteindre un taux de réussite de 92 pour ce qui fait qu'on va dépasser le taux de l'année passée de d'au moins 30 30 pour cent mm-hmm. ce qui est inédit ce qui est extraordinaire. Euh, loolu xam naa bis bu euh, may wax rek kilifa yi nañu ñaanal xale yi euh, ñi dem deuxième tour jàll ndax loolu tamit bu amee dégg ngeen proviseur li mu wax lycée de Thiénaba dafay def benn jéego boo xam ni ci résultat xañ na mas na fee am waaye man am ngi fekkewuma ko. waaye euh, loolu nag bokk na ci li nga xam ne mooy wane ni ñoom ñi ŋànk euh, lycée bi euh, ci direction bi ak corps professoral bi ay jàmbaar lañ def nañu résultat boo xam ne résultat bu wara a mën a nag jara siiwal la ci réew mi ndax tey bu ñu leen doon classé ci yeneen lycée yi nekk ci wala yeneen collège yi nekk ci Sénégal yaakaar naa nañ bokk ci collège yi gën ci résultat donte ye dégguñu yeneen résultat yi waaye taux de pourcentage boobu dafa nekk taux de pourcentage boo xam ne bu baax la monsieur le proviseur Euh, jàngat bi def nañ ko joxe nañu résultat yi euh, ñaax nga xale yi tey message bi ak looy tàggatoo. loolu ñu góorgóorlu rek affaire bi moom secret amul euh, jàng moom jàng moom pour réussir jàng rek la amul amul secret amul luxus amul jàng rek c'est l'effort résultat est au bout de l'effort travail rek moo am solo donc ñaax gaa yi ñu góorgóorlu gën a boo eggee nag ci taux bu mel ni lu ci gën a jafe du du yéeg mooy nga des desandi fa ci kaw donc ñu bañ a baisser le bras bañ a kii ñu continuer rek ci lancé bi parce que cours yu ñu def man njort naa ni cours renforcement lu ñu def ba am na ci jéego am na ci vraiment jeexital bu baax a baax ci bac bi comme ci comme ci BFM bi parce que cours yooyu moo parce que xale yi amoon nañ jafe-jafe ci début bi début d'année mais prof yi wax dëgg yàlla góorgóorlu nañu et puis jàppale nañ leen ñoom te ñu bañ a bàyyeeku te surtout troisième dañuy dem seconde seconde donc euh, orientation dafa am et puis ñu gën a gën a farlu gën a ngémbuwaat et voilà loolu rek moo fi des. du ñu coupé te euh, waxuñoo aussi quatorze personnes yi nga wax ñi nga xam ni tey euh, ñoom lañ njëkk a génne quatorze yooyu tey ñoom lañ lañ leen di wax ci wàllu consoler leen ak aussi ñu waajal nag. ak nan la ñuy def ñoom. loolu la mais góorgóorlu rek. dellu ci waar wi rek. waaw jàngaat rek. ñi ñi nga xam ni seen cartouche jaaxagul dañuy desandi ci lycée autorisé nañ leen ñu redoubler. mais ñu góorgóorluwaat daanu bon lool day am à beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça mais c'est il faut pas renoncer il faut redoubler d'effort dem ci kanam rek. loolu et ay xale la ñu donc seen kii yàq du leen yàqal dara buñ góorgóorloo l' essentiel nag boo redoubler classe booy reprendre classe redoubler bonul c'est redoubler classe bonul voilà mais nag boo redoubler da nga war a def jéegu c'est-à-dire ngay am ay mention dem dem ci kaw yenn saa yi sax vaut mieux nga redoubler que nga nga jàll fekk niveau bi nekku fa donc redoubler ci boppam bonul mais boo redoubler nag da nga war a euh, gën a voilà takkuwaat loolu mooy solo moo am solo xanaa jaajëfal ñëpp kontaan fu mu nekk nii man damaa damaa damaa kontaan di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla dolli ñu sutura dolli ñu sutura dolli ñu sutura sutura rek moo am solo. félicitations euh, mbokk yi kon loolu la ñu jëlee woon fii ci lycée bu Thiénaba macha allah mu nekk lu am solo xam naa di euh, tàggatoo ak euh, internautes yi ak téléspectateurs yi di leen jox dig daje incha allah ci deuxième tour bi rek ñu mën a ànd ak yéen ba ca cëppaandaw ja jàmm xéwal ak sutura yàlla yàlla def ko mu saawaan baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 canabati walis say bi ahadun yab xëy an nasuunahu